ci ndox mi tant que richesse amul liggéey du am te richesse pour am il faut agriculture bi dox industrie yi am pour industrie yi am il faut que ñu créer leen ay mesures incitatives taxes yi wàññeeku euh, euh, les coûts des facteurs mooy courant beeg intrant yi wàññeeku il faut aussi que industrie bi nekk ci loxo sénégalais yi il faut ñu am contrôle ci industrie mais mënuñu industrie yoo xam day importer matière première ñëw jaay ñu lu gën a yomb sénégalais yi bay seen matière première bu ñu ko transformé mu gën a cher donc le Sénégal avec de Sénégalais ñun ñooy développé suñu bopp France duñ développé Amérique duñ développé waaye Sénégalais itam du Diomaye leen développé du Sonko leen développé du Amadou Ba leen développé du Karim Wade leen di développé ñooy développé seen bopp suñu sécurité ñoo ko yor suñu développement ñoo ko yor. sa xalaat dox mënagul a dox parce que ñu fi nekk ñoo ngi soog a egg si mais liñ fekk itam ñun amaguñu bilan il faut que. bala ngaa boo yoree dara da ngay xool def situation diagnostic nga leeralal ko nit ñi nga xool fi nga jëm mu leeral nit ñi nit ñi d'accord ci de façon inclusive et participative ñu fixer un plan d'action on n'a pas de plan d'action stratégique déjà donc mënagul a dox on attend la déclaration de politique générale on attend le projet gaa yi ngi ciy liggéey et opposition bi itam xëy na bu ñu demee parlement ci euh, loi yi législation bi dina am nu taxawe mais fi mu ne xale yi aussi ñoom ni yaakaar yaakaaroon xam ni nguur gi day changé seen situation changé parce que ñoom xamu amuñu conscience ci nombre bi ñu représenté amuñu conscience ci valeur bi ñu mais ñu cëpp itam am nañu ay formation ñu liggéey mais parce que njàng mi ak njàngale mi adapté wul ak liggéey donc école bi adapté wul ak formation ak entreprise donc ça c'est un problème mbay mee itam mbay mi nekkul foo xam ni xale bi bu amee maîtrise am day dem mbay bu njëkk euh, je crois c'était soit bi Diouf mën nga am maîtrise dem yor ay taxi baa nga bay il faut ñu former leen ci loolu et cetera et cetera donc ya problème yi ñoo ëpp solution yi et il faudrait que ñu trouver ensemble des solution avec un plan de développement stratégique qui peut être quinquennal et bu nu ko defee dañu xam ne dans cinq ans fii leen jëm fii leen jëm mais nag ñoo am ay évaluation suivi évaluation période bi buñ ci tollee war na toll fii war noo créer tant d'emplois suñu gaz bi ñu war koo jël pour defar pour defar ay industries des petites et moyennes industries c'est les petites et moyennes industries ñooy les moteurs de la croissance et moteurs de la croissance boobu mooy joxe richesse richesse boobu mooy joxe emploi emploi mooy jox xale yi liggéey liggéey boobu moo fi téye xale yi donc loolu non xam nga ñun comme ci digg bi la nekk non la la la la xam nga ñun dañ fi doon xam nga ñun ñoo fi njëkk a génne troisième voie mais dégg nañ ñu koy utiliser ñu bàyyi leen ko ñun fi nekk c'est média li ñu intéressé mooy bu nekkee ci parlement ba ñun dee ñu fexe ba suñuy idée ak suñu conviction écologique suñu conviction écologique suñu conviction de droit et de justice prédominer dans l'élaboration euh, législative loolu mooy suñu xalaat pour que Sénégal jëm kanam que opposition dominer que pouvoir dominer ñun nekkuñ ci logique boobu suñu logique mooy ñun nañ dem gagner am suñu groupe parlementaire toog ak gars yi bu ñu fa toogee ku wax dee ñu xam ku nekk yaay kan li nga wax mooy lan fan nga ko jëmalee ndax jariñ na askan wi am jariñu loolu moo nu ñor fii ñu toll.